taxaw nañu ni dañu bëgg a bokk ci joŋante bi askan bi jóg dem voter leen ñu ni élection libre libre suñ ko déggee wax na waxu liberté donc ci fal boobu ak nu mu bindoo yépp ak luñ ñu ci war a def yépp ña nga xam ne ñi dañuy jóg di voter ji ñi nga xam ne ñi dañuy bokk ci jongante bi te ñuy candidat yi war nañu mën ci élection bi commencé ba ba muy jeex lépp luy seen sañ-sañ ñu mën ko def mu nekk une élection libre transparente moo di mu leer maanaam lépp lu ñuy def mu bañ a ump kenn te système bañ koy defee système boobu mooy may askan bi nga xam ni moom mooy fal mais ñi nga xam ni dañuy joŋante bokk si joŋante bi muy candidat yi lépp lu ñuy def ci élection bi mu bañ leen ump mu nekk une élection transparente démocratique suñ ko wax dañuy xalaat démocratie parce que si foofu la bàyyee ko démocratie bëri koy waxtaane mais lu ñu mën a jàpp te xel yu bëri nga daj si moo di nee nañu démocratie mooy nguur gi système boo xam bii nguur gi askan bi moo ko moom te moom moo koy doxal si jamono bu ma koy doxal nag mën na tànn ay nit ñoo xam ni daf leen di dénk ay sañ-sañam ak ay mën-mënam ñooñu di ko ko doxalal fañ ko war a doxale donc élection libre transparente et démocratique mooy la nga xam ne nii bépp réew bu ñu naan réewu démocratie si loolu lay xëccu du xëy nag sotti du xëy sotti parce que réew mën na commencé tey ay élection élection yi jeex ñu am ay jàngat ñu ni lan moo dox lan moo doxul nañu toog waxtaan weccante xalaat pour xool élection su nous nañ koy doxale ak nu nit ñi di participer mu tane bii loolu mooy progrès ci ñu ñu une évaluation def ay jàngat di def donc réew ya nga à tradition électorale lañu en général nous dañuy parfaire ce système ñun au Sénégal cat depuis ba Macky Sall ba léegi moo ñun ci démocratie xamuñu avancer reculer rek la parce que lii amoon ci élection yi weesu daañu si dellu si pour élection am wax naa léegi élection libre transparente et démocratique nee naa leen nguur gi askan bi moo ko moom moom moo koy doxal directement wala mu dénk ko ñoo xam lay tànn leen fal leen ñooñu nguur gi téye ko mais moom daf koy dénkaane te si élection la koy dénkaane suñu jëlee élection boo xam ne bi moo ñu intéressé muy élection ba nga xam ne bii moom la ñu fare wala fale suñu candidat Karim Meïssa Wade muy élection présidentielle benn nit la ñuy tànn réew mi dafa war a am njiit parce que ñëpp mënuñu jiitu ni ñooy njiit il faut kenn jiitu ñu dénk ko ñun mu tëyal ñu suñu nguur parce que askan bi moom moom nguur gi mais dañuy tànn kenn ci Sénégal si ñu ko bëgg ñu nekk am kàttanam mën ko ñu dénk ko suñu nguur muy le président de la république donc loolu pour mu mën a am il faut mu am lu ñuy wax un corps électoral maanaam nit ña nga xam ne ñi mbott nañu voté te bëgg bëgg voté dëppoog yoon lu mu laaj pour ñu mën a voter ñooñu dañ leen di may ñu mën a bokk ci corps électoral bi pour ñu mën voter mooy le corps électoral dañuy bindu bindu boobu moom la ñuy wax inscription sur les listes électorales pour ñu mën a bindu dañu war a am ay këyit te donc élection y niveau une participation citoyenne la da je un citoyen pour que mën a un électeur suis nga a am ay si ak suis doomu Je mu am ay suis gannaaw ba nit Je ay ñu déclarer à l'état civil mu am acte de naissance su jógee ci loolu moom nag moo war a dox dem wuti carte d'identité national am carte d'électeur su amee carte d'identité nationale mooy tax mu mën a bindu ci liste jamono jii nag sunu carte d'identité yi dañ ko boole carte d'électeur mën nga dem wuti carte d'identité boole ko wut carte d'électeur wala nga am carte d'identité amagoo carte d'électeur su waxtu bindu joto nga dem bindu ji mais lu ci mënte nek pour nga mën a voter da nga wara am carte d'identité am carte d'électeur ba paré nag nga dëppoog yoon pour que ñu bañ la tere voter da nga wara a yoon yoon lo def ben jalgati ba yoon tere la voter au président de la République Maître Abdoulaye Wade l'homme africain, le visionnaire, qui a tout fait pour le Sénégal. Il reste inoubliable dans l'esprit des Sénégalais. dara mënu fee am te gis nañ dëkk yi ñu seex yoo xam ne seen fitna ci élection la jóge loolu la ñuy bañ mu dal Sénégal moo tax ñu teel cee jóg pour wax nit ñi ne fii lañ jëm nañu ci taxaw ba Macky Sall li mu bëgg bañ am pour que réew mi dal parce que bu bu jëmee fi mu fi mu teg tànkam nii bu ko teggiwul mais dinañ jàkkaarloog moom dinañ jàmmaarlook moom dinañu xeex xeex bi mu war ba sunu candidat may Meïssa Wade nekk candidat incha allah en 2019 dama ne loolu am na waxuma ne Karim Wade bu nekkul dañu ne condition yi nekk ni bu fekkee yi ñu organiser élection législative yi maanaam falum député yi condition yi ñu ko organiser bu fekkee même condition la ñu nar a organiser élection présidentielle élection du am Sénégal parce que élection bu PDS bokkul du élection ci biir dëkk bi donc loolu moo tax ñuy def marche pour attirer attention nit ñi loolu moo tax ñuy conférence tey conférence suba conférence gannaaw suba nek ci télévision ak radio yi di wax li ñu mën bala jëf di di am donc ñu yaakaar ne président Macky Sall dina xam ne moo uuf njaboot gi yëpp fexe ba wax ak opposition bi nga xam ne mooy opposition significative ma xamal leen ne ñi muy waxal ñuy wax ni dialogue national boo leen boolee ñoom ñëpp il ne représente pas 5 pour cent de l' électorat du Sénégal et xam ngeen doole PDS ak ñi mu àndal au minimum au minimum le PDS c'est 25 à 30 de l'électorat sénégalais donc si wax opposition PDS la ku bëgg régler problème problèmes politique ak problème mu élection ci Sénégal il faut nga wax ak parti démocratique sénégalais te loolu le président Macky Sall di bañ parce que mënuñu d'Am waxtaan ba pare mu def na mu defoon tànn li ko neex la ko neexul mu teg ko fële dañoo bëgg am garantie wu bu ñu waxtaanee conclusion yi génn ci waxtaan boobu dinañ ko appliquer te li koy firndeel li ma wax ni yëpp li koy firndeel mooy déjà même ñi demoon ci dialogue boobu am na période boo xam ne dañu retiré wu parce que Macky Sall amna na ay galgal yu mu tek parrainage caution ak yenen ak yenen yu mu tek yo xam day fexe ba candidat bu sérieux du ak mom té lolu aussi du démocratie du liberté de choix donc peuple bi mo souverain dañu bañ Macky Sall nangu souveraineté peuple bëpp pour imposer ñu bopam donc dañu bëgg souveraineté bi delloowaat peuple mu tànn ku neex mu falu président de la république du Sénégal. talibé seigne Fallou di xaritu seigne Abdou Karim Mbacké suis député à l'Assemblée nationale C'est mon deuxième mandat en même temps nek la responsable nationale chargée des femmes du Parti démocratique sénégalais donc je me suis dit je je me rappeler au moment bi ñuy opposé parce que depuis 1974, je suis le président Ward. donc parti animation là, parti parti mobilisation là, parti information là. donc euh, damay suis Cheikh Sek, le secrétaire général euh, le président la cellule des cadres libéraux di aussi ñi nga de lañ ñu daan fi ñëw ay yu ndaw di fekk Boubacar Sall yalla ak ku fi des taxaw donc dama leen di gërëm bu la jeunesse sénégalaise di gërëm nous nga appartenance ci PDS la aussi les mouvements académiques pour soutenir notre candidat, qui est le seul et unique candidat que j'ai l'habitude de dire, nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas de plan C, nous n'avons pas de plan Y. On n'a pas besoin d'une femme qui porte un foulard ou bien un homme qui porte un pantalon. Nous avons un seul, un seul objectif, c'est élire. Notre seul objectif, c'est élire Karim Maïsawad en 2019 à la magistrature suprême de ce pays. Donc vraiment, c'est une soirée qui s'est très bien passée, machallah. On remercie tout le monde. On vous remercie aussi, vous les journalistes, parce que c'est grâce à vous que l'information passe partout dans le monde. Donc on vous remercie. On prie pour vous que vous ayez réussite. Vous pensez que l'opposition peut réunir les 25% pour amener Macky Sall au second tour Moi, je crois que le PDC peut réunir 25% pour amener Macky Sall au deuxième tour. Pourquoi Parce que le président Ouad a bien fait pour le Sénégal. Il a beaucoup fait pour le Sénégal, c'est un visionnaire, il a tout fait pour ce pays. A plus forte raison qu'il soit secondé par d'autres partis de l'opposition qui viennent qui viennent s'unir autour de l'essentiel. Leur seul objectif, c'est faire partir Macky de la tête de, la tête du pays. votre candidat Karim Il est toujours candidat. Il est aujourd'hui le candidat. Il était hier il est aujourd'hui le candidat, il sera le candidat et le futur président de la République du Sénégal. Inch'Allah, je ne peux pas vous dire la date. Mais ne me parle, ne me parle pas qui, va, qui peut ne pas accepter sa candidature. N'est-ce pas que le, ministre, euh, le juge Henri Grégoire Diop a tenu une conférence de presse après sa condamnation de dire que Karim est bien éligible. Donc je ne pense pas qu'il ne va pas se dédire normalement. Donc je crois personnellement et c'est ce croit, c'est la confiance de tous les Sénégalais. Karim's est bel et bien le candidat du Parti démocratique sénégalais et futur président de la République du Sénégal. On lui souhaite bonne santé, on lui souhaite, on l'encourage, on le soutient et on souhaite à son père, l'homme africain, oh oh, le, celui qui est, qui est habité à faire du social dans ce pays, celui qui a de l'émotion envers les Sénégalais.

le lion du Kayor parce que sunu xarit la doomu ablay wad la no daan ànd di xex yalla ñew jël ko yalla nako yalla xare aljana firdausi encore ma cité ci kenn pour ne pas aller trop loin moy Adja Thiané Lo Lo aussi buñ ma ñëw ñew ca ci jamono booba boba woon ne dinañ dem pouvoir dañu buñ dalul kër Boubacar Sall këram la ñuy dal momit yalla jël ko yalla nako yalla xare aljana donc di nuyu yit nak ñepp ñi nga xam ne ñu ngi fi nekkon fi te joguñu fi comme man am conviction am une loyauté de leur parti loyauté envers le président Wade Nous <laughs> avons fidélité Nous avons Wade parti bëgg sen bop, sen deret nous sen ñu parce que pouvoir mënu dajal ñëpp ñu ngi toog kon ñoom itam ñu ngi leen di félicité gis naa saal bi sama yaram dafa daw. PDS wane na boppam euh, ndax seen candidat dina ñëw yow lu tax nga ne du ñëw bay leen dina ñëw lu tax du ñëw mooy suñu candidat congrès lañ ko fal Karim deewul doful fii la dëkk waalo gii la dëkk Karim day ñëw day ñëw day campagne dañuy ànd ak moom dañuy wata dañuy gañ Serigne Touba jox nañu réew mi lu nu yaakaar Serigne Touba lañ koy ñaan lu nu yaakaar El Hadj Malick lañ koy ñaan lu ñu yaakaar ñeneen ñi Serigne chef religieux yi ci réew koy ñaan tàllal nañ fu ne suñu loxo di ñaan yàlla Karim Wade dikk jël réew mi Sénégal yi nag nag noppalu nag tuuti ngi dëgg. ah waay kooku nag euh, c'est le PDS. yow xam nga ne naataangi dëgg c'est le PDS. am am na ñu si génn euh, euh, kan moo génn ci PDS. a ah non on ne parle pas de Baraya Baraya n'a pas quitté le Baraya dafa dem pour les intérêts de Saint-Louis parce que élection législative yi bu Baraya élection municipale Baraya serait aujourd'hui le maire de Saint-Louis il a une base à Saint-Louis dafa en tant que patriote dafa en tant que ay nitam en tant que intérêt buñ né dañ koy andi ndar Baraya Baraya ak bokk maam jabaram jabaram ak bokk maam man wu pour dire vrai bëgguma wax ay waxam dama am dama am nakar je n'y croyais pas xam nga ni defal ndeb dama am nakar dama am gatché te sama nijaay la mosuma ko sàllalu nak sama yaay nijaay la sant bëgguma wax ci mom suma ko waxee damay am lu may sentir donc dem bi mu dem ça n'engage que sa propre responsabilité en tout cas moi je suis là je suis là comme le nez sur dans la sur la figure je ne bouge maanaam man maa ngi ni dem ma pousse ma passe ma dal man maa ngi man duma Jean duma Paul man je suis wadi wad la abla wad la man wa bu sama xel dal lu may wax enseignant yaa ngi geraw médecine a ngi geraw élèves yaa ngi geraw morceau rouge yi fuñ fuñ jaar ñu ko ba ii lu lu may tiit man de bu ma nelawul nag ba yandoor ak taxaw kon nga lanu 2011 nuy cinéma ki sama xarit lanu xeñon 2011 ba nu joge fi waxtan ak opposition bi li len dalon ci législative bañ len dal c'est-à-dire lu démé nan xam nga kenn ku nek ak sa ak sa ak sa sa nga gisé Nous, li nu gis mooy àndandoo Ablaye wad est un fédérateur bolé njabotam bolé ñu opposé parce que l'objectif objectif principal képp lañ am muy faire quitter le président Macky Sall à la tête de cette magistrature donc dinañ ci woté té ñu ngi ci waxtaan démb rek à Guédiaway 23 partis de l'opposition. ñu ngi ñëw taxaw ñu def assemblée générale pour préparer la marche du 9 dañuy ñaan kañ yalla bu ci seytaani dugg nak ndax seytaani mom sew na lool fa fakàlla te mën a ay am nañu yàlla musal ci seytaani yalla bu ci seytaani dugg rek ba nu juboo am nañ ci yaakaar ben objectif lañ am yalla nak moy joxe pouvoir xam nga ñun dañuy wax rek nak l'homme propose Dieu dispose falu ak foliku ken yoru ko yalla ko yor donc ñun danañ am tawhid bu toll ne ñep ëmbante nyep, ñep ñaan yalla li dal yaay jame way bu mu joge fi nañ lu senegal aussi mu dal nu nak nu abal ken ken tous contre ken rek nanu bolo nak yalla yalla yàlla xoli yow kula wax kan banu yegg ca xam nga suñu fem duñ ko wax nun dañu bari pax de jenax lan dañu bari pax waaw xam nga makki tejul ken Khalifa Sall ci mujj ndax ku sa wuji sëlëm do rafet do set makki Khalifa Sall ci kon loolu mom amul solo xam nga itam sam papa fay faral di wax ni ñett bu dalé doom adam na xamné du kenn yalla la néna rër ba sour fanani hôpital néna du kenn yalla la néna rër ba sour ñu laxas yobu ca morgue ba su ñu la jébal sa borom tuba néna du kenn yalla la néna lég lég ñu tejj nit tejj ko ba ci yag ñu ubbi ko mbayangal ko né deful dara du ngeen ko dégg ci radio yi mom de tejj nañ ko nangam am ak ku doon wax barki dem ki 6 ans mo jëkëram né deful dara donc amna lo xamné natula té il fallait que karim dugg pour xam adina waaw xam na àddina sax ndax macha allah c'est un intellectuel de classe exceptionnelle mais il fallait que mu dugg pour xam dëgg-dëgg lan mooy àddina ñun tëj bi dañ cee rafet ndax xam nga lu kenn meru ci. Karim jooyul ku la wax ne jooy na waxul dëgg chaque lundi je suis là-bas jooyul bindiwul jàmbatul bopp buy metti newul biiram day daw kenn yóbbu ko pavillon sanitaire. demul fenn mu ngi toog ndax li mu doon ca kër baayam ca gànjo rek loolu la Karim wane ca ca ca Thiès natt nag bu ko yàlla tuddee ci yow mbaa ko ci man mbaa keneen kon mënu ci dara waaye li am solo rek te am rapport en fait c'est Mohamed Lamine euh, Massali président de la fédération du parti démocratique sénégalais ici à Thiès euh, candidat de la coalition Manco gagnante. Euh, coalition gagnante Watou Sénégal et, ma proposition s'articulait sur cinq points la validation de la candidature du candidat qui a été déjà désigné, le frère Karim Maïsawad, Deuxième point, exigence de l'audit du processus électoral en présence des trois partis politiques, des trois partis, l'opposition, la société civile et le pouvoir. Troisième point, installation du bulletin unique pour éviter l'achat de conscience, exiger la distribution effective des cartes d'identité biométriques. Quatrième point, superviser les nouvelles inscriptions qui commencent le 15 février prochain. 50 points installés dans les quartiers des brigades de vigilance pour qu'il n'y ait pas de fraude. Et euh, pour terminer, demander à nos frères et sœurs du Parti démocratique sénégalais que l'heure est à l'unité pour la consolidation et préparer la venue de notre candidat Karim Meissawad. Wow donc nous waxtané fi conférence bi nga frère cadre organisé proposé pour nous valider candidat la candidature de notre candidat Karim Maïsawad. Nous bi pour nous auditer processus fichier électoral en présence ou présence bi nga yu ŋànc élection yi ñoo ko war a teewee muy parti politique yi euh, société civile ak pouvoir bi nga xamante ne ñoom ñooy organiser élection yi ak instauration bi nga xamante ne moom exiger muy bulletin unique bi pour ñu mun a moytu càcc yi ak jënd ñi nga xamante ñom ñoy ñooy voté ñeenteel bi moy ñu superviser les inscriptions yi nga xamante mu ngi commencer ci fukki fan ak juroom ci mois de février bi ñuy dugg ak it juróomeel bi ma ne nañu installé ay brigade si quartier yëpp quartier bu nekk nañu créer ñaar fukki ndaw ak juróom pour ñu mun a sécuriser li nga xamante ne mooy fraude bi ak carte d'identité yi ñu nangul ma ko muy rapport boo xam ne war nañ koo tënk pour jébbal ko vingt vingt trois partis politiques yi nga xamante ne ñoo war a jàkkaarloog nguur gu télé gi fi nekk.